mais incha bu neexee tabaraka wa taala Lac kenn xamu ko ci violence Lac de yar ak teggin ak dëgër këcc mën a bëri moo tax bu ma déggee ku naan Lac de mënta bëri dama naa ko yow xamoo làmb parce que li tax xamoo làmb la de Guiers mbër la moo xam ne lu mbër def mu dindi ko ki ki mën a bëri mooy loo pexey moo lal moom mu ni te li muy doo ko dindi xoolal tàkku saanam jë ak isaap yi kenn dootu ko fàtte nga xool tàkku saanam jë ak tafaati nii war a bëreeg Eumeu Sène kenn dootu ko fàtte nga xool tàkku saanam ak yaxey Jóob ni kenn dootu ko fàtte muy mbër moo xam ne nag mbër la moo xam ne dafa naqaree daan te moom pexeem bu amee doo wure doo dem dem kon yaakaar naa ne Siteu daanu ci Lac de Guiers du gàcceem Lac daanu ci Siteu du gàcceem parce que dañ ne Lac de kenn mënu koo daal ndax mbër la moo xam ne il est mais il est offensif aussi parce que bu gisee bunt day dem ah bari ñooñu ma limal muy euh, euh, Issa Pouye dafa jëli Issa Pouye muy euh, Euh, tafatin dafa jëli tafatin muy yaxee joob Yékini dafa jëli yaxee joob Yékini kon mbër mu ci nekk dafa bëreek yow li nga xam ne war na koo bëreek yow may wax nag ne euh, jamar production dafa tëgg lii muy tëggin boo xam ne euh, li mu ci bëgg mooy réussite parce que lambi Luc Nicolaï ji bërki dem diggante Ama Baldé ak Modou réussite totale la ñu bëgg incha allah bu dimanche euh, euh, euh, Baye Ndiaye mi nga xam ne moo tëgg lama ji bëgg na ci réussite total te incha allah dina am réussite total parce que juróomi grand combat loolu wax dëgg-dëgg yàlla làmb ji ku cinq quatre heures fekk ci bunt bi doo dugg moom deux heures war na fekk doomu adama yëpp ci biir làmb ji Euh, may félicité bu baax a baax a baax a baax nag euh, Baye Ndiaye parce que euh, relève da ngay ànd ak sa mag mu bëgg dara di ko def ba tey xañ na amatul jot googu mu ko defee wala mu am ci ndigal goo xam ne tere nañ ko mu jël rakam ju mbokk Aziz bravo Aziz parce que Baye Ndiaye Aziz moo ñàkk papa mais Baye Ndiaye rek papa ba nag di hmm. Aziz moo ñàkk Alé Ndiaye mais ki nga xam ne mooy Baye Ndiaye moom Baye ma ngi dund ba nag mu muy muy Abdou Aziz mu def ko bàyyi nan jox ko respect lu Aziz wax loolu la wax lu Aziz waxul waxul loolu kon muy combat boo xam ne war nañ cee dànk bu baax hmm. xale yi yi rawatina waa Lansar. Mhm. parce que bu ñu la baatalee nangam. Mhm. bu ñu dikkee def nangam. bu ñu dikkee ci suñu nangam loolu dinañu rus. Mhm. kon diggante Siteu ak Lac de Guiers nene di wax ni papa Siteu rek na gën a moytu na gën a tamit fàggu boppam parce que siiw dañ ne siw du jàmmi boroom ndax nit mën na def naka sa du noonu sax ñu ne waa kër Siteu la comme nit day am fu mu lay euh, féetalee wala am fu mu lay xoolee buñ ñëwee dinañ xeex wala buñ ñëwee dinañ def naka sa du noonu defal tout ba xeex du am histoire du am leneen du am parce que dëkk banlieue rek warul tax ñu lay tudd ci yenn yi naan ay dañuy xeex wala ñii dañoo bëri histoire yow mi nga xam ne yow yaay mbër mi te bëgg dara waxtaanal ak say mm-hmm. ah, xeexuma ma bëre laa defi moom laa bëgg te moom laay def ndax awma lu dul làmb su ma bëriwul awma leneen lu ma def kon bu ma ko kenn yàqal ñii ñëw stade tamit te xam xam ne ñoom làmb moo leen indi xeex indiwu leen xuloo indiwule leen ndax euh, sa mbër bu fekkee ne yow li koy dooleel moom mooy soo ñëwee nga dagg sa ticket toog seetaan ko tàccu encouragé ko ba mu du gis daray gàcce waaye bu fekkee ne sa mbër dafa euh, ñëw stade ngay xeex papa wala ngay xuloo wala ngay am neneen noo xam ne yow yaa ngi koy doxalee mm-hmm. yow yàqaloo kenn mbër mi nga yàq te yow mm-hmm. boobaa du nekkatoo supporter mm-hmm. yow yàqkat nga waaye nekkatoo supporter ndax supporter dëgg day supporter mbërëm euh, du xuloo du xeex du werante yenn werante yi ndax da ngay gis stade yenn saa yi nga gis mbër am supporteram ñuy xëccoo wala ñuy xuloo wala di dem ba nga xam ne dañuy jàppante ba zemi yi dañuy ñëw di leen euh, séparer te loolu du yoon ku nekk sa mbër mi la indi toogal nga concentré wu ci li ngay def xaar ba xam mooy daan wala du daan ci nga xam ne tamit mooy Lac de Guiers na waxat tamit ay supporter am ñu ñoom tamit ñu bañ a xuloo bañ a xeex bañ a tontunte bañ a gaaruwante ndax ku nekk da nga xas sa moroom mm-hmm. ne ko dinaa la daan kon loolu war ngaa wane mm-hmm. yow li nga doon wax mm-hmm. ndax da xas-xas loola mm-hmm. ku nekk dane sa morom dinaa la daan dinaa la daan boobu yàlla moom mayee mooy mayee ndam ku nekk nanga def loo xam ne dinañu wóor ne kii kat ñëw na ci làmb ji def na lépp lu mu war a def waaye yàlla mooy maye ndam ndax tey bisu am du bisu ñàkk ndax tey mën nga ñëw def lépp li nga war a def ñu tàggal la ci tàggat bu am solo nga ñëw yàlla mayu la ndam bu la yàlla mayul ndam du sa gàcce du sa yaafus du sa ñàkk fayda yàlla moo la mayul tey te bu beneen yoonee boo bëree yàlla dina la may nañu waxtaan ak supporters yi nañ leen ñaax bu baax a baax ñu xam ne làmb suñu cosaan la suñ ko yàqee ñun lañ yàqal stade ba lu fa waaye yàq ñun lañ ko yàqal dëgg la waay bu fekkee dangaa damu seize mm. ëllëg di nga bëgg a ñëw toog mu tëla mm-hmm. sa mbokk bëgg ñëw toog mu la Sénégal fi lañ yaroo fi lañ màggee fi lañ defee li ñuy def ba nekk fi liñ fi nekk te ñoom ku nekk tamit dangaa jaayante takk sa ndigg ba yàlla may la lim la may nga doon mbër dégg champion kon loolu bu leen ko kenn yàqal yéen mbër yi dëgg la yéen laay waxal waaye mais nee ne euh, dafa am solo sax xoolal mhm. bi làmb dingootee mhm. stade bu ñu dem ñu ne fii football bee ko moom mhm. wala basket bee ko moom wala handball kon bu ñu defalee biisu bu mel nii ah, Euh, sampal ñu ko. Mm-hmm. xale yi war nañ koo respecté. Mm-hmm. mais chaise yu bari damm nañ ko. Mm-hmm. ba léegi dañoo dindi par chaise ya. bàyyi leen nag léegi tabax bi. léegi jël loge. ñi nga xam ne tey du ñu damm ay chaise. boo daanoon seen bër fukki yoon du leen chaise bi ñu toogoon. bu ñu génnee dañuy ñibbi ndànk. loolu mooy mooy yoon. mais foofu nga dugg dafa am solo lool. biiju bi ñu defal. buñ parce que bu làmb tëjee. bu làmb yàqoo. Mhm. mbër rek mooy perte. wallaahi. woykat yi. Mhm. dañuy woy feneen dañuy liggéey tëggkat yi. Mhm. dañuy tëgg feneen. ñun waxkat yi. dañuy waxi feneen. billaay waaw kon ku yàq la du mbër mi. mbër kese ah ngi noonu. ma gis ah. baba baaba baba jaxal papa. waaw ah. ndax bëre na fi ñu yàq saisi. dafa ñëw defaraat ko. ndax mu ngi jàngale di wan ne mbër warta yàq. dëgg la ndax li ngay suturloo. waroo ko yàq dafa ñëw defaraat saisi ànd ak ay nitam ñëw monté waat saisi ñu yàq yëpp dëgg la buñ ko yàq ndax buñ ko yàqee dootuñu amati feneen fu ñu ko defal comme dañoo yaatal mhm. nañu yaatal lépp yaatal xol yi mhm. tàppe xol yi te xam ne àdduna amul solo mhm. ndax fi ngay déggee papa fi ngay déggee maam te sànq da nga wax wax bu am solo ndax bu ñu xoolee ci suñu papa yooyu nga xam ne ñëw nañ ñi yor bant ñi ñu teg leen ci saisi war ñoo xam ne àdduna amul solo billaahi dëgg la ndax ñaanu yàlla rek continuer nekk ñu defi ji leneen. li leen di may xaalis nag papa buñ ko sàgganee. jërëjëf nee na euh,